Adja euh, li nga xam ni moom mooy ba jaxate ak imaam Ndaw jotoon nañ fi ñëw victime di net ñu leeral ni yoon da leen a daan ñetti weeri kaso ak amaanu cent mille francs Doora Gueye ñu joxaale leen itamit ni procureur euh, juge bi mujj na ko yóbbu fële nga xam ni waaw moom mooy kii boobu parce que dafa méngoog li may waxtaan. waaw waaw c'est vrai waaw. maanaam Doro mujj naa dem fi nga xam ni moom mooy ca euh, prison. dem toog xaar donte ne nee na nangu naa fay 500 millions bu génnee mu fay 700 millions yi ci des waaye nee nañ ko demal nga toog xaar ñu. ci loola la ñu gis benn activiste boo xam ni mi ngi wuyoo ca turu Alassane Fall activiste Pastef la doon xeex ci projet bi nga xam ne moom lañ naan Pastef dafa ñàkkee ma euh, lenn ci magistrature yi kàddu ya nag duñ ko teg. naam bii fii xewee ñu ko coppet di lijjanti mbiram mais ñu tegaleen vidéo bi nga xam ni jot na koo def daal nee na di jéggaloo ko def yëf ñu xool ko dellu si sama mbokk patriote maa ngi jéggalu bu baax a baax maa ngi baalu maa ngi baalu ak baaleen ma man nit laa man nit laa nit laa kese dama juum dugal vidéo bi di wax si juge bi ak procureur bi parce que bu ma waxee ci juge bi ça veut dire carrément le président Ousmane Sonko lay waxal te man yàlla xam na ni ni ma bëgg Ousmane Sonko bëggoo ma ko sama bopp Ousmane Sonko daf ma jaral àddina ni ma bëggee Sonko yaa wax yaayam bi ko ju sax ko noonu ndax man kenn boobu dama ko nangul kenn Ousmane Sonko mooy sama xol fi ma ko teg teguma fa kenn maa ngi jégalu bu baax a baax a baax vidéo ma def am na ñu ma woo conseil ma tamit dégg naa bu baax maa ngi jégalu. maa ngi jégalu bu baax baal leen ma ak baal leen ma ak zizi yëpp bàyyi bàyyi naa leen ngeen liggéey seen liggéey maa ngi jégalu amaane peut-être dama jum maa ngi jégalu maa ngi jégalu baax baal leen ma baal leen ma ak si vidéo bi sama sama frère yi nit la maa ngi baalu maa ngi jégalu bu baax maa ngi tuub baal leen ma ak vidéo bi dootuma ko defati maa ngi jégalu ti wax baax jabate dam si génne ba set wicc di bàyyi justice mu liggéey seen liggéey maa ngi jégalu baaleen ma baaleen ma ak nit la baaleen ma ak baaleen ma ak Omar bun Xataab kii kenn la ci ñi nga xam ni dañoo bokke woon ci euh, Pastef maa ngi gis nag beneen activiste boo xam ne nee nañu bokke na ci Pastef jege lool gaañi nee nañu arrêté nañ ko amaguma ci lu ma leer nag après mën naa nekk yu ñuy tàngal daal mais amaguma ci lu ma leer su ma paree dinaa ko dinaa ko gëstu mhm. mu mel ni kon léegi deux poids deux mesures doon wax ci état bi fi woon ah bii de gis nañu ni ñi fare moom ak ña fare fépp a ci yem ku ci xotti xormay institution bi daa mel ni gaa yi nañ la woo déglu la mhm. waaw xam ne kii li ñuy wax nag la loi elle générale et mhm. impersonnelle maanaam yoon dafa nekk pour ñëpp tey jii waaye yoon nekk na pour ñépp waaye du yamale ñëpp du yemale waaw ci naka boo déggee man du yemale ñëpp mooy àtte bu ne ak daanam mhm. xam ne ki ki sàcc milliard du nga ko yemale ku sàcc ginaar kon ma ne kon du yemale ñëpp ci ni muy àtte te ñëpp yem ci kanamu yoon ki wax waxam mu ne wax ji ne man maa ko wax mu insisté di dëggal wax ji ña ko war a jéggalul di ko jàppaleel comme baa Diakhaté dafa wax man dégguma fu mu jéggaloo bu ko defee tribunal la ko defee wala ci procureur mais publiquement gisuma ko ña waroon a jéggalul génnuñu jéggalul ko waa APR dañoo xëy di confirmer jaaruñu ci lu mu wax mais dafa mel na li mu wax ñoom dañ cee ànd ñu foogoon ni instruction lañ koy yóbbu ñu atte ko flagrant délit loolu rupture la. Mhm. parce que yooyu bu musaan am. daawu fi am instruction la jëm. instruction la jëm. Mhm. daan bi nga ko teg ñu bari xeeb noonu ko sax ba jàpp ni mënoon naa gën a diis. Mhm. kon danoo jàpp ni foofu justice moo wax. justice boo wax ci Bah Diakhaté ak Imam ndaw nag moo wax ci mbiriw activiste bi activiste bi dafa ñàkkee teggin yoon egg fi mu warte egg ci ay wax mais moom fi muy amee circonstance atténuante mooy dafa jéggalu maanaam dafa jéggalu te jéggalu bu la ko nit defee maanaam amatoo loo ciy teg mi ngi mel ne kaw Birame Souleye Diop bi muy wax ci Makeek Watara moo gënoon a garaaw mais bi mu jéggaloo dañ ko baal ci kilifa parce que yombul nag yombul nit taxaw publiquement jéggalu mhm. kon kii woo nañ ko dem na wuy ji jégalu na est-ce que jégalu bi mu jégalu yoon dina ko bàyyi xel dañuy bàyyi yoon mu def liggéeyam mhm. ci côté boobu te ñoom aussi ñu xam seen bopp te dimbali Ousmane Sonko ak Jomaay dimbali leen ñi nga maa ne kilifa nga koy dimbali tey jii kii liñ koy teg wala ñu koy teg Azoura neexu leen mhm. mais ñoom duñ justice mu na am bu doon ni si Ousmane Lam wala Jomaay rek est-ce que bi dëgg la Hmm? non non bu dee ni sax bu dee dëgg du dëgg mais damay wax ñoo généralement waa Pastef bi nañ dimbali seen kilifa yi bañ leen a dugal ci yenn yi waaw tey jii du ñàkk nii ñu ngi toog am yaraange am am benn gêne ci ni booy bii de def na lu ne pour ñun mais tey jii comme dañ yoon dafa am indépendance am léegi yoon moom war a atte te ñoom mënuñu intervenir te buñ sañoon mun am ñu intervenir mhm. mais mënuñu ko kon kay kii li mu def waru ko woon def maanaam mbiri Bah Diakhaté daf waroon bàyyi yoon comme ni mu ko waxee yoon def ci lu war même buñ woon Bah Diakhaté ko bàyyi lu yoon man dëgg la même bu ma bëggee ñu tëj ko te yoon ba ko man du ma yoon si kon nan bàyyi yoon mu bàyyi ko kon ku ne na yem fi mu war a yem journaliste bi yem ci liggéey journaliste am keneen yem fa mais ñu bàyyi yoon def li mu war a def te booy passé fii maytu te xam ne ñekkatu ay opposant léegi doonoo nekk ay pouvoir mm-hmm. noo nekk ci pouvoir bi man côté boobu rek laay ñaan teg ci nag booy Pastef yi bu leen comparé ak ñenn ñi xamul ndax du leen comparé yemuñu di nga booy Pastef yi dañ leen a jiñ lu dul dëgg tëj leen ci kaso bi ci lu dul dëgg bàyyi leen ci lu dul dëgg am na ci booy yoo xam ne seen place du kanamu procureur xam seen place fan la ci ñi faj nit xel. d'accord il faut que ñu yóbbu leen dalal xel dalal seen xel yi. ñenn ñi boo leen di déglu da xam ne. jëmm jee ne waaye bopp bi nekkatu fi erreur bu ne mën nañ ko def ci àddina kon nañ leen dimbali. d'accord dalal xel ñu dalal seen xel ba yenn bêtises duñ ci dugg parce que waa boo koy xool di ko lii bu tay doon démb wax ji du ko wax comme jégalu na nag. d'accord léegi yoonee xool da koy baal wala da koy téye moom. macha allah suka mi ngi noonu am na ñu ko doon commencé wax naan dafay jëfandikoo justice dégg naa ndaw soosu borom euh, la ko su trente mille yi mille cinq cent dem na sax wax na ba dendale aw saaga ak justice bu Sénégal. Euh, ndaw soosu bi mu waxee nee na am na dossier yoo xam ne Ousmane Sonko moo ci teg coñcam te na ko dindi yoon àtte ñenn ñi ndek yow boobu xamul woon ni ñoom contrôlé ñu yoon ndax buñ ko contrôlé woon tey ñaar ak ni ñoo xam ne ku ci nekk yoon woon na la waaw bi ma ko déggee nii euh, daf ma daf ma jëlee kaw parce que dafa am loo xam ni hmm. euh, nit ki moom ci ci li nga nekk rek ci lan lay jàppee mais moom euh, bi mu waxee wax yu tegginewul hmm. wax ko ñi nga xam ne rek moom moo di justice bi mu ngi magistrat yi wax leen loo xam du naka sudul noonu moom ci boppam demaat na ba xam ni li mu def erreur bu rëy la xam na ni def na erreur toogaat nekkaat na tamit ci mën a kanam. toogaat amul rëy. wax ni bàllin moom wax. yaram waa tàngoon xam voilà bi muy wax nag neen dafa bëgg usmaan sonk mais boo bëggee Ousmane Sonko lool ci sa biir xol am na noo xam ne war nga koo mën a dimbalee ci loolu. ba ngay ne bañ a ba nga bañ a toog fenn jël sa ordinateur wala nga jël sa portable rek di saaga te saaga yooyu ñuy saaga wala muy am ñoo xam da nga leen koy teggandeel di leen ko def ñoo ñu du duñu xaar ëllëg nii de dañ koy faj ci saase. muy magistrat donc kenn ka moom nag toog na wax dëgg yàlla toogaat fi mu toogoon ci manikaanam euh, jéggalu te àdduna moom ku jéggal ñu jéggal la vraiment man noonu laaj loolu mooy sama philosophie baalu na te neen def naa erreur toogaat na wax ni def naa erreur def naa erreur donc jàpp nañ ko yóbbu nañ ko ah damay ñaan rek nañ ko baal vraiment wala ñu teg ko loo xam ne daan boo xam ne day oyof ci moom daan na ñu bàyyi ko mu ñibbi dañ ko bàyyi mu ñibbi moom wallaay <laughs> yow yow sa kaso ba dafa metti de sooyibu. <laughs> non billaay sooyibu wallaay sooyibu kaso ba. <laughs> xanaa gisoo détenu politique yi fi ñu nekkoon newoon kenn génnewul kenn kaso. fan yii sax bëgg naa nga commencé live. Ah, man kan ma live man. ah da man mii. utal naa la émission ma live xam naa ñu jël seen temps naan sukaa sukaa sukaa. da de. baax na doy na sëkk. waaw ah, bu ko defee man maa lay asim. ci affaire te ci affaire magistrat yi sax ngay wax. waaw baaxul. Ah, suka suka mhm. mi ngi noonu euh, Adja waa Alassane Fall ma nga ñuy déglu ca kanamu yoon donte ni gaañi la àndal daal seetaan nañ kook yoon mu lijjanti mbiram ndax dafa ñàkki xorma gaañi waa magistrat yi de ñoom duñu baale boo leen tooñee duñ la baal même boo baaloo mais nag euh, li ñu naan une une faute commise est à moitié euh, quand tu euh, demandes pardon c'est à moitié pardonner une faute reconnue donc mënoon nañu mënoon nañu du ma du ma du ma leen jàngal seen liggéey duma leen wax dara mais ñoom ño <laughs> du portable am la wala wala wala voilà léegi nag léegi moom. ah déedéet ci portable am la ko sotti. Mhm. <laughs> mais xam nga ah, euh, nit tooñ jéggalu. Mhm. loolu déjà euh, ku rëy mënu ko ku ku ku xamul àddina mënu ko. Mhm. xëy na des fois dina ñuy discours walla ñuy live euh, fugg yóbbaale leen. walla dara mais dafa am loo xamante ni man musuma koo cautionné. heure bu nu fi toogaan dama naan la muy justice muy chef religieux yi mu ñëw bëgguma koy xotti wor ma mais nit bu jéggaloo rek. c'est parce que ki mu tooñ war na giif tuuti. Mhm. en tout cas yal na yàlla dimbali ko. yàlla génne ko ci ci bu yàggul dara. amiin incha allah alaaji. Mhm. Alassane mi ab activiste la. Mhm. xam naa sénégalais yëpp ñu baree bari tey lañ ko xam. wala boog lañ ko ràññee ñu ci bari bi mu waxee lii le jëfee nag ba mu demee ba àgg ci daal ñu lijjanti ko moom tuub na lu ndax euh, su ma yëgoon maanaam weesut. ndax magistrat moom comme ni ko biti waxee seen i mbir daa xaw a sévère. mën nga koo jàppee lu yomb waaye man nga caa wax loo xam ne après la la fay dugal mën na laa bañ a gaaw a génne. Hmm. moom nag jéggalu na. waaw euh, dégg naa sànq kii nee na nañuy dimbali Ousmane Sonko ak Jomaay li wax hmm. su tamit ñëw na fellu ko ci loolu. dafa pertinent wax ne nañuy dimbali Ousmane Sonko. waaye Omar a ko wax. bu répété. merci merci na trop parce que la répétition est pédagogique. merci loolu moo tax nag baax na répété ko loolu nekk loo xam ne lu am solo la allah intellectuel moo wax ku xamul jàpp naa ni lii sax lenn la ci dimbali leen jàppale leen. waaw muy lan. parce que ci biir wax ji dafa am loo wax loo xam ne bii moom moo indi mbir mi maanaam metti na jégglu na ñàkk na solo. mais après mujj na am solo maanaam jàppale leen parce que fan yii yëpp boo déggee dañ ne son Sonko moo yore justice bi di ci teg cooc waaw xam comme que moo ba teg cooc xanaa kon ay ñoñam mu tegoon ci cooc waaw dëgg dëgg ba kenn du leen woo lii de amul jamonoy jamono yu waaja ah ka ca Maroc donc le jàkka yi di julli ak am ak am diine ndeysaan le fait que jàkkay Maroc yooyu le fait que jàkkay Maroc yooyu na fa génn <laughs> non man mos maa xam ne président Sall nii la amee diine di dem ay raw du Cheikh ak wër na yàlla ma ngi ci jàkka ya. daa bëri xaalis am jot rek la daa bëri xaalis ma nga daal dara jàpp loolu xaal bëri ko am. xam nga li am solo. waaw mooy. Euh, maanaam. ki ñi woon moo tee jafe-jafe gi mu am nii. waaw yaa ngi woon ci ki ñi ni waaw daf cee def maanaam daf cee dimbali. waaw Ousmane Sonko fi mu toll nii xam nga tey jii bu fekkonte ni defut dara ñépp dañuy continuer ci lancé wu. waaw lële mais léegi li tax ñu xam ni ñii ñoom ñi ànd ak ñoom ak ñi àndut ak ñoom erreur bi mu def la kon erreur bi pareen saay am na ñooy jële mën na baax mhm. si parce que am na lu mu feeñal comprendre nga feeñal na ni fan yi yëpp ñu doon wax ci plateau yi naan Ousmane Sonko mooy orchestré yëf yi mhm. du dëgg parce que bu doon moom la ay ñooñam kenn du leen tee parce que dégg nga fi mu toll ci Ousmane sonk mhm. kon donc pareen saay liñ naan euh, mal nécessaire maanaam ah. baax na baax na ni nga xamante ni noonu la amee léegi nag mu des nag ci jéggulu gi mu jéggulu loolu tamit ñu gisaat ci leneen. Mhm, parce que ñi doon ànd ak l'autre daawuñu taxaw fenn di jéggulu dañ daan gën a nekk ca lañ ne. ci ko sànq ci mais kii moom amut grand amut euh, rëyub taxaw mm, jéggulu taxaw na jàkkaarloo waat ak sénégal yi ne jéggulu na man jàpp naa ni. magistrat bu demee tamit ci ñooma bu bu yëf yi demee tamit bon gis nañ ni jéggulu na loolu li Omar wax encore day ñëw tey jii mën naa def benn mbir nga def même mbir mi nga jéggulu man jéggulu ma ñu dem ah, mbir mi gën a tar ci man mbir mi parce que jéggulu euh, mooy li béti wax ah. léegi ci tubaab rek boo nangoo lenn li xaaj ba daanaka jéggal nañ la xaaj bi. une faute reconnue. donc loolu nekk na loo xamante ni bi lu am solo la. kon donc nañu xam ni mbir mi <laughs> moom na féetewoo merci <laughs> ak <laughs> comédie comédie la bëgg a def euh, kii bi quoi. émission bi euh, comédie bi jotagul xaaral ba mu jot. parce que mënoo jël ca waxalu sukaay am ñoo xam loolu la ñuy xaar am naa sama benn xaar Abba Abba Seck la ne moom sukaay rek lay suivre moom yoonam nekkul. benn fans nu benn fans eh, ñaata at benn fans suka li war nga koo feete pourtant moom ñi muy ñi muy wax ni dañ koy xasta ay commentaire yu positif lañ koy waxal ah. ni ko dag ñuy ndur nit ko baax man yooyu dama koy gis dañ lay waxal lu baax léegi li am solo mooy comme yàlla dogal na suka mbaay mi sooy bu def na plus de quinze ans de télévision du 15 ans de. benn fans lii di ko feetal benn fans. da koy feetal benn fans. te war na di live léegi sax. jeex na waaw jeex na bi jeex na. loolu laa doon loolu laa doon loolu laa doon wax rek. macha allah aywa di wax ni daal euh, gëm naa ne dinañ ko jéggal daal. macha allah. Mm-hmm. parce que li am na solo rëy rëyut quoi. kon mi ngi noonu Adja ñu joxante ak. sa wax la yaa wax loolu de lu rëyul. yow yaa wax loolu très bien. félicitation intellectuelle yaa ngi jël sa ngi lekk sa temps de. amul problème très bien man sama temps bi moom temps bi nga xam ay la deux temps bi. <laughs> kon Adja mi ngi noonu. ñu euh, joxante ab euh, digg rek. incha allah <laughs> waaw Adja du ngeen ma bàyyi ma tëj léegi. saa way wax de. <laughs> nee na une heure de temps la amoon ba 3 minutes. dana waaye xam nga man une heure de temps laa def départ musical. ñun départ dañ ko daan sa xol moo yaatu yaa ngi yaa ngi yaatal ñun ñëpp. merci waaye dégg nga ko loolu la wax a nee na a boo xam une heure de temps la léegi 3 di naan ci kii mu gileef. kii naan émission demee. su nee saa dem la su kaay indi ñetti yëreem def benn émission def ñetti émission tamit dem tëdd këram tegay tànkam ñetti émission. ci benn fan la koy daan def la daan tourné nekkal fay de ñetti émission lay tourné. lii loolu te actuel actualité la war a wax. mais moom day tourné pour ñetti fan. saa day dem tourné ji émission day dem tourné ji théâtre yi ñuy def par corps gi ma xam ne day metti ma woo Modou Fall. ni ko Modou ni ko Modou kaay saa dem na mu ni ma waaw ma ne ko maa fi nekk may patron bi léegi may bu may kaalachaa ne pas la solidarité. Uh-huh. ma woo Vieux Mbaye ni ko Vieux indaale ñetti tiset <laughs> man ma indi ñetti ñetti yére bu ma summee lundi ma ne premier numéro de la semaine maa dama waxaat deuxième numéro de la semaine mercredi man troisième numéro de la semaine ñu jël teg yëpp saa ñëw fekk lépp am mun ma yow bu yow a <laughs> ni ma émission bi daal di mën ba. Ah. wala lii daa daan def def naa fi lii yëpp. sooy bu tëjee. <laughs> aywa kon Adja maa ngi lancer message di wax ne sénégalais yi ñi xam dara ci mbirum euh, Jibi Gueye Ndiaye bi. Mm. nañ ñu yónnee message ni message victime di neen 77 le 256 61. d' accord incha allah merci beaucoup Diop.